waaw gars yi ngi leen nuyu leen ziar yéen ñi ci vraiment sport ñu war a ñëw ci benn vidéo waa ci Krépin Diatta bi nekk Monaco tey mën a fool maximum solo mu nekk 2-0 Monaco moo dóor 2 Krépin Diatta dugal benn bii bu extraordinaire muy bii magnifique mu nekk loo xam ne franchement ñëpp a koy xaar Krépin daal franchement guddi yi xaw ma ni lan la xaw lu xew mais Krépin mi ngi wane boppam franchement mi ngi wan ne bi li ma defal ay faayda rek mais man Krépin joueur classe mondial la daañu ñëw si bi ne gën ko leeral mais laataa loolu dañoo yéen ñu gan ci bi ngeen abonné te nga bës ko notification bi pour ngeen si réewoo au fii ci Rmo Sport donc ay Krépin mi ngi noonu ah c'est magnifique gis ngeen image comme ñoo ko mënee tijji noonu football doublé course forcé xam nga dóor. waaw finalement France finalement ba mu ñu dugal ci quatre-vingt minutes yi extraordinaire mu nekk bi boo xam ne moo gën a liberté écram igomam na un zéro wóorul mais mu nekkee deux igom ci la amee liberté bon tir xam ne gañaana max bi kon Krépin daal quel jour quelle performance magnifique image magnifique vidéo magnifique magnifique nga dama nekk vidéo bi wéy abonné di commentaire di partager like yi ñu xaar